amee internet yi ñu bàyyi xel suñuy différentes fekkee li nga xam ne mooy ubbitulu bitigu Aïda xam ne woykat la dond ko ci ay maamam waaye def liggéey bu am solo ci diwaanu Sénégal tout récemment gis ngeen single bi mu génnee def clip mu dem na ci 600 et quelques de vues presque si ay jours mu tuddee ko def ma ren tey nag mu def inauguration boutique tuddee ko Seyda boutique boobu ñu doon ko waxtaanee waxtaanee li nga xam ne moo nekk carrière musicale bi waxtaanee lan moo tax mu def projet bi ni mel ci Sénégal di yokk li nga xam ne mooy mbiru entrepreneuriat laataa ñuy tàmbali suñu wax dañ koy bàyyi mu nuyoo su ko defee rek ñu waxtaan Master Aida avant tout ñu lay félicité bàyyi la nga nuyu internet yi. bon asalaamaaleykum tout le monde maa ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam mm, mbégte bu baax aussi euh, ci seen présence. Euh, seen présence tey si si si bés bi xamante ne bés bu spécial la si man euh, di nu sénégalais yi nga xamante ne aussi ñoom ñoo ñuy seetaan euh, di leen baalu ak ci tamxarit bi ñuy jógee di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. macha allah maa ngi koy wax léegi sama njëlbeen wax tey doon bésu mbégte. Mm. ngay ubbi sa boutique Sénégal ñëpp ñëw ndax yaa fi mel nii nga mel moo tax ñëpp ñëw ah, rawatina presse bi lan moo waral ni ni mel tey nga ubbi boutique ah def complexe bu ci diggu Sénégal nekk waaw man nag um, dama dama bi ma nekkee xale ba léegi dama bëgg affaire jënd ak jaay et tey su ma yàlla dimbalee ma nekk Sénégal nekk fii euh, artiste euh, nekk euh, artiste bu ñëpp xam artiste bu ñëpp bëgg artiste bu ñëpp ràññee tey c'est mon devoir aussi ma mën a contribuer un tout petit peu bi nga xamante ne mën naa ko tey boo xamante ne tey mën naa créer ay ay emploi yoo xamante ne nii ay nit mën nañ ci jariñu loolu moo tax tey moo indi lii te man aussi bëgguma nekk tamit euh, jigéen bi nga xamante ne musique rek laay def donc ma yàgg bëgg aussi am Euh, beneen activité boo xamante ni activité parallèle la ak euh, sama métier muy muy muy muy musique donc loolu moo tax tey ma initier lu mel ni et que c'est c'est pas la première fois peut-être que tey lañ ko euh, def mu nekk lu mag mais yàgg naa ci affaire jënd ak jaay yàgg naa ci affaire commerce mais tey peut-être mooy bés bi nga xamante ne nii moo waral sénégalais yëpp di ko gis macha allah gis nañ complexe bi am na lépp macha allah mais lan ak lan ngay jaay si boutique bi su ko defee nii ñu mun kaa xam aussi parce que gis nañ ni boutique bi rëy na rafet na mais tamit say xarit say àndandoor ñëpp ñëw nañ. waaw boutique bi nag li ma fi jaay man mooy ay man dama bëgg affaire kër. waaw man dama bëgg affaire surtout. ay vaisselle dama bëgg di di di dressé. Euh, dama bëgg di teg ndab bu rafet dama bëgg di di di di di utiliser ay vaisselle yoo xamante ne vaisselle yu rafet la donc loolu moo waral ma ne pourquoi pas ma def ko euh, ubbi ko mu nekk boutique sénégalais yi aussi di ko di ci di ci gis seen bopp beneen wàll bi mooy que ni wàll tissu yi ak euh, dàll ak sac man Euh, comme par exemple la plupart su ma solee yére yi dañ may laaj fan nga ko jënde ak euh, foo ko foo ko foo ko foo donc man aussi ma ne pourquoi pas ubbi loo xamante ne nii tey ñëpp nañ ci gis seen bopp. Mhm. surtout ñi nga xamante ne nii tey dañuy am mariage dañuy am ngénte tey soxla tusi boo xamante ni benn pièce lay nekk ñu wutali leen ko. ñu wutali leen ko euh, indil leen ko ñoom tamit ñu bénéficier aussi loolu moo tax ñu def ko une mélange boo boo xamante ne nii mélange de tout la vaisselle lépp lu jigéen di soxla ay drap de lit ku xam jigéen xam ne euh, drap aussi dafa bokk ci jigéen donc ñu it def ay drap def vaisselle euh, def ay tissu comme ni ngeen ko gisee ay tissu xew ku am mariage dàll saak pour pour pour tout monde. Euh, ndax boutique bi coût bi nekk na lu ndaw wala nekk na lu rëy ndaw. waaw def nañ ci xaalis. 100 wala. non mënu ma mënu ma franchement mënu ma wax exact exactement euh, coût bi ñaata la parce que man sax xaw ma ko. Ah mais li ma xam daal xam naa ne euh, def nañ ci xaalis et que dañu def suñu kéemtalaay kàttan pour que ñu am ay ay ay bagages yoo xamante ne ay bagages yu qualité la ay bagages yoo xamante ne vraiment. du du du du loo xamante ni ay faya faya la. c'est de la bonne qualité loo xamante moom la jaay ci boutique bi. que mu nekk ci vaisselle yi que mu nekk ci saak yi dàll que mu nekk aussi ci tissu yi. ok da nga wax léegi wax ju am solo nga ne yow lépp looy jaay da ngay jaay lu baax pour jeeg yi ñu gis na Aïda dafa bëgg boppam Aïda xaritu jëkkëram la day firndeel ne ñaareel xaritu jëkkëram bi nga doon bëgg lu baax moo tax ngay jaay lu baax pour jigéen ñi di roy ci yow. waaw parce que xam nga sëy moom mu lekk égal lal dara bu rafet égal solo mu rafet donc je pense que ni loolu loolu lépp dafa ëmb ëmb ëmb question boobu. Mhm. macha allah tey jii Aïda ubbi complexe bu doy nii macha allah la ngay lan waaw c'est c'est loolu lu du comme du may wax tout le temps rek man domaine boobu duma ma si bëgg di dugg parce que tey li ma gën a naxari sama àdduna mooy le fait que tey samay parents fekkewuñ dara ci sama sama sama. sama sama sama waroon ko waaw oh, maanaam le fait que sama sama samay waajur fekkee fekkee woon sama am jëkkër fekkee woon sama am jëkkër ñoom ñaar ñëpp le fait que aussi tey li may initier yëpp euh, ci sama liggéey samay projet fekkee wuñ ko muñal bësal xol bi àdduna nii la donc loolu bokk na li ma gën a metti si sama sama sama àdduna bi nag loolu la yàlla dogal d'accord bon c'était pas notre intention ñu jooy loolu mais waajur moo sori ci doom donc ñu ngi lay masawu bu baax ça se prouve que ni fierté nga ci ñoom fa ñu nekk kontaan nañu ci yow dañu génn ci état boobu ñu waxtaan ci complexe bi pourquoi le nom Seyda ça signifie quoi Seyda euh, Seyda mooy jigéen Euh, Seyda mooy jigéen mais sama tur la S bi mooy Samb Aïda bi mooy mooy Aïda mooy Sayda. d' accord le monde de la showbiz maintenant dañuy gis que ni création yu bëri na si bëri bu dul artiste woykat bu dul comédien ñu ngi créé léegi ay emploi di si liggéey qu' est ce qu' il y a le monde de la showbiz ça paye pas moo tax euh, créé ngeen créé ay emploi euh, wala yéen a gis ni que ni musique bi ci kanam tuuti am na nu muy demee ba mu sa emploi bopp du dem moo tax ngeen yéen artistes yi ngeen di ay emploi c' du du musique bi moo doxul parce que tey ñun ñi ñun artistes yëpp musique mooy suñu métier quoi. musique moo tax tey ñu xam ñu musique moo tax tey ñu mën a dem ba mën a xalaat dara initier ko euh, di ko def waaw mais juste que yàlla bu la dimbalee denk la dara war nga mën a fexe aussi ñeneen di ci ci ci bénéficier wu euh, c'est le c'est le c'est le but. d'accord sa liggéey ak musique bi. dem na nga ba créé ci sa studio bopp tuddee ko seen gamme. Mm. ces temps-ci y a beaucoup yoo xam ne ay décembre bi ñu koy def mais si musique bi la gën a accentué wu. Mm. récemment passé defoon nga inauguration studio bopp. Mm. donc bi nga xam ne moom moo di Art. sa labelu bopp. ak waa euh, seen Prince Art. Euh, lan moo xew parce que foofu famille woon. waaw la ñu xamee ay décembre. nga jóge fa créé say studio bopp ñu bëri ci sénégalais di wax que ni euh, est que amul problème bu tax nga jóge fa dem créé. famille déjà avant liggéey bi ñuy liggéey man ak ñoom euh, samay samay mbokk lañ du sax mbokk bu sore ay mbokk yu jege lañ yàlla nag mooy bind ànd mooy tudd ànd mais bis bu ko yàlla dog dogalee na ànd boobu tey fii lay yem ànd boobu dafa yem mais amul dara lu si ñaaw amul dara loo xamante ne lu ñagas ñagas la tey par exemple su ma soxloo tey kenn si Prince Art ka mu nekk Ngoné ka mu nekk Ibou dinaa ko solliciter euh, et je pense aussi de leur côté c'est la même chose ñoom tam suñ ma soxlaa noonu lay demee mais amuñu benn problème euh, nit bu nekk nag ñaan nga yàlla en un certain moment de ta vie nga nga nga nga nga xoolaat. naka ngay def ak naka ngay ci lan ngay dugg am sa yëfi bopp parce que doomu aadama bu nekk loolu lay ñaan naka lay def ba am yëfu boppam donc tey moom ma sant yàlla di profité ci occasion bi di remercier sama jëkkër parce que tey su ma mënee lii yëpp di ko def c'est grâce à lui tey moo ma jàppale moo ma dimbale ba ma mën a am sama studio bopp ba tey su ma soxlaatee répétition sama studio bopp laay répété su ma soxlaatee enregistrement ci sama sama studio laay laay laay laay enregistré. dafay retardé tuuti artiste da nga loolu foofu moo tax nga créé sa bopp pour nga dem parce que la preuve tu as sorti benn tube boo xam ne ça fait fureur sur la actuellement bokk na ci a dégg te sa label nga ko produire. Mhm. donc Prince Art ne dañoo commencé di briller certes que boo fa jógee da ngay gën a am brillance que Prince Art amul retard bu mag ci sa carrière tey su ma waxee loolu ce serait vraiment égoïste de ma part parce que tey sénégalais yi suñ ma xamee euh, ba bëgg ma je pense que ne Prince Art daf ci jouer rôle bu mag peut-être que bi ma fay dem dama yóbbaale sama talent waaw dama fa yóbbu sama talent mais je pense que ne am na loo xamante ne nii def nañ ko def nañ ko si man donc bëgguma bëgguma sori trop ci domaine boobu parce que on une famille et wax dafa xaw a garaaw mën naa wax wax lu ma warul wax te bëgguma wax lu ma warul wax ñoom sama sama sama famille lañ sama famille lañ tey le plus important mooy que ne Aïda jóge na Prince Art mu ngi dem di liggéey ci boppam yàlla mi ngi koy suturaal première morso bi mu génne bi mu génne mu ngi dox nit ñi bëgg nañ ko et je pense que ne loolu c'est le plus important mais euh, man ak Prince Art waaw c'est c'est c'est d'abord une famille c'est d'abord une famille moment nga am li li tax loolu may wax loolu mooy Momo Dieng mi nga xam ne euh, mu ngi artiste biir Prince Art jël nañ ko favoriser nañ ko léegi moom la ñu gën a produiral ndax loolu du frustration ci Aïda mi nga xam ne moo nekkoon numéro un foofu ci Prince Art non non man man man nag je suis une personne boo xamante ne nii man man man du ma frustré wu parce que nit gu gëm la yàlla la li ma am damay jàpp ne lii la ma yàlla may lu ma amul ma xam ne lii yàlla mayu moom ko hmm. euh, Momo Dieng c'est frère boo xamante ne nii je l'estime beaucoup et lu may wax tout le temps nit ñi dañ may dégg dama leen wax dama naan leen Sénégal fa tey afa am ay artistes yoo xamante ni dañu mën a way et que Momo Dieng tey mënoo génn ci génération am koo xamante ne nii dàq na ko dàq na ko way du frustration du dara yëg-yëg la ak yëg-yëg ne war dëgg yàlla war naa mën a nag dem def sama yëf bopp ma def ko mais yan ça n'a rien à voir ak euh, frustration. ok mais Aïda euh, ubbi na labelam ubbi na studio am léegi ma ngi doxal carrière boppam Aïda mi nga xam ne gisoon nañ ko ci ginnaaw Youssou Ndour ndax Aïda dinañ continuer dina continuer di nekk ci ginnaaw Youssou Ndour di ko aaw. man comme je dis tout le temps Super Étoile école la suba suba suba suba suma euh, Youssou woowee. soxla ma. Euh, day nekk plaisir bu mag ma dem nekk ci ginnaaw. tey foog mu woo la soxla. waaw bu la wooyu. ah ndax di nga dem ci ah. Ah? événement bi nga xam ne. aussi tamit gis bu ko woowee bu la wooyee ndax Aïda ko gis ci événement. non man man sama sama ka tey dana ma leen wax benn affaire tey Youssou dafa dafa contribuer bu baax a baax a baax tey ci sama carrière ba pare tey. mën naa ne dafa contribuer aussi tey ci lépp lu nga xam ne man dama koy def donc man aw ma xaar ma xaar ma yàlla euh, ak famille boobu parce que en dehors de musique bi ñuy def c'est ma famille ñoo bokk en fait dañu am ay liens de parenté yu yu yu yu yu mag a mag a mag a mag donc tey moom su ma soxlaa ma wax na ko Gàmbi mu ne moom ma nekkoon ci moom ba mu sentir ne war naa mën a dox demalal sama bopp mu bàyyi ma ma demal sa bopp donc tey demee ba mën a demal sama bopp donc moom aussi def na ci jéego yu rëy. création studio bi est-ce waxtaan nga ci ak moom ak sa départ bi Pressa il courant de tout. ak départ bi yëpp. il est au courant de tout. lan la la wax. non loolu c'est du ah. nit doo wax a kilifa ba pare après toog di wax li nga wax ak kilifa. d'accord mais li ma mën a wax daal mooy lépp liy xew. moom Youssou dara umb ko sax il est au courant. mais il vous euh, pas rentrer dans les détails parce que kilifa doo wax ak moom ba pare di wax li ngeen wax mais li ma mën a wax ba wax ko mooy li may def ak ci li may dugg di ci génn il est courant de tout. waaw man bi may dem tey tey par exemple tey euh, c'est un plaisir tey man ma génn Prince Art xajal xale yi nga xamante ne nii ay génération bu baax bees lañ ñu ñu profité ñoom ci Prince Art loolu c'est un plaisir man aussi tey label bi nga xam ne moom la ñu yore muy Sénégal musique ah ñu def ko Sénégal mooy Sénégal ak Gambia tey dañ ko ubbi pour tous les artistes artiste bu nga xamante nii soxla nga ko mën nga ñëw avec avec un grand plaisir que mu nekk ci studio de répétition bi que mu nekk ci studio d'enregistrement ki nga xamante ne nii teg waykat bi nga xamante ne tey dafa bëgg ku ko produire mu ñëwee seen gamme aussi ñun on est prêt comme niñ ma ko defalee woon man aussi pare naa pour defar ko defar ko xale yi nga xamante ni tey jug nañ nekk ay artistes. ok euh, single bi def ma leen ñu waxtaanee ko da nga ci woy rendre ci hommage sa jëkkër rendre ci hommage sa wujju sa relation ak sa wujju ndax c'est pas facile ñuy gis artistes yi woyu jël waaw moom Fatou c'est ma moom ndeysaan sax dafa waroon ñëw si inauguration mais yaram moom moo xaw a jagadi tuuti moo tax ñëwul mais moom c'est on est une famille gis nga comme je comme se di tout le temps man dama ñëw ci kër fekk kër googu am ambiance am am am nu muy doxee donc man sama warugar ak sama sama warugar mooy ma ñëw apporter liy yokk jàmm liy yokk neexaay di yet sutura mais man sama devoir du ñëw di xajale walla di di di di def quoi que ce soit et je pense que ne tey loolu moo indi tey suñu